Il s'agit d'une rencontre euh, qui, dont l'objectif est de procéder à la validation de l'alerte de politique du développement dans le secteur travail et protection sociale. Il s'agit d'un important document d'orientation stratégique dans lequel figurent euh, les éléments de diagnostic, les programmes prioritaires, les contraintes du secteur, de même que le cadre de pilotage et de suivi-évaluation du secteur travail sur la période 2017-2022. Il s'agit d'un important document euh, qui est élaboré suivant une démarche inclusive et participative avec l'ensemble des acteurs du secteur pour disposer d'un cadre stratégique euh, qui sera en mesure de définir les grandes orientations du secteur sur la période 2017-2022. Euh, c'est un document qui passe en revue l'ensemble des aspects dans le secteur travail et protection sociale. Évidemment, la question euh, de l'amélioration des conditions de travail est un point important du diagnostic qui a fait l'objet d'une étude minutieuse et pour lesquelles des solutions ont été préconisées en termes de renforcement euh, du nombre de ressources humaines de même que l'amélioration des conditions de travail tant sur le plan matériel que sur le plan logistique. Alors, euh, a priori, c'est un document d'orientation stratégique. Parce que le Sénégal, euh, comme vous le savez, s'est doté du plan Sénégal émergent et euh, a adopté les directives communautaires qui font obligation à l'ensemble des États membres d'adopter une démarche de gestion axée sur les résultats. Et euh, à l'instar de tous les autres départements ministériels, le ministère en charge du travail aujourd'hui s'est doté de ce document de lettre politique sectorielle qui est le cadre stratégique d'intervention euh, des missions du département sur la période 2017-2022. Euh, dañu woote woon ñëpp ñu nga xamante nii ñoo seqoon euh, waxtaan bi pour que ñoo am benn euh, document bu xamante ni moom mooy euh, organiser tëralinu ministère du travail ci benn fànn bu am solo bu mu yëngatu lu ñuy wax mbirum liggéey ak mbirum protection sociale da di lu xamante ni ministère yëpp ñu ngi koy def et suñu réew comme nañ ko xamee dafa am lu xamante ni moom moo Euh, euh, l'intervention euh, intervention gouvernement bi ñu plan Sénégal émergent et puis lolu euh ci mbirum réew yi dañ ko bok ci yenn yi ñu tuddé mbirum avons dañu wax pour ñu changer doxalin lu xamanteni day tax liggéey bi gëna bar et puis mu ay résultats tax ñu fi muy travailleur administration employeur ak ci jàppale waa ministère de l'économie économie des finances ci seen kuréel googu mu tudd direction générale de la planification des politiques économiques pour ñu ñëw toog pour que document bi ñu waxtaan si ñu valider ko da euh, di liggéey bi xam door nañ ko ci ay ay weer yu yàgg tay nak mom moy ndaje bu mujju bi xamante ni la pour que euh, document bi ñepp ni d'accord ci ni euh euh moy document bu nga ci juroomi at yi ñuy jëm fii 2017 ba 2022 lépp lu ñuy def muy plan de travail yi muy intervention euh, administration du travail ak protection sociale ci loolu lañ koy wér donc loolu moo waral solo tey suñu waxtaan bii tey. waaw euh, lii gën a baral liggéey bi te li gën a tax tamit liggéey bi gën a jaar yoon loolu aussi euh, bi ñu toogee di xayma mbir mi gisoon nañ ni contrainte la te contrainte mooy rëq-rëq.

et lépp li nga xamante dañ ko séntu pour que plan euh, document bi nga xamante ni dina jaar yoon buñ ko fa defee loolu lépp séntu nañ ko saytu nañ ko gis nañ ko te mbirum euh, condition de travail lu am solo la te ñu ngi ci liggéey def nañ ci ay jéego yu am solo pour que euh, ñëpp nga xamante ni ñoom ñooy yëngatu ci pàcc boobu mbirum travail ak protection sociale ñu gën a am ay liggéey xam dina gën a baral seen liggéey et puis mu jur ay lu xamante ni dina amal njëriñ Sénégal jërëjëf